ak ñaan ku jëm ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi nekkal Serigne Touba te mat ko lool di ko ñaanal sunu borom mu may ko mu yàgg fi lool te ànd ko wér dund téeméeri yu ànd ko wér ak tal ak man ba liggéey Serigne Touba yim tàmbali yëpp mu àggale ko te ànd koog njabootu Cheikhul Khadim gi yëpp noo ngi ñaanal bu baax nag jëmm ju tedd ji nga xam ne moo waral jotaay bii waral teewaay bi tey muy Serigne Abdou Samad Mbacké ibnu Serigne Souhaïbou mu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di sunu kilifa di sunu lépp. tey jii nag ñu ñëw fii ci kër Cheikh Mouhamadul Mountakha ci Daaru Minam fekk ko fi ànd ak sëriñ Mouhamed Mbacke mi nga xam ne mooy loxo ndijooru sëriñ bi te it ba sëriñ bi doonee Cheikhul Khadim ba léegi sëriñ bi am pas-pas ak yitte ak dogu goo xam ne da koo jaayante ñu mën a wax ne sof na ko ci liggéeyu sunu maam Cheikh Ibrahima Fall bi nga xam ne ñépp xam ne weeru koor bu ñëwee niñ daan ni Baye Fall yi def. ci ndogu di ko togg di ko jox njaboot sëriñ Touba gi ak jullit ñëpp amuñu xejj amuñu seen Serigne Abdou Samad mu Serigne Chouaïbou bu it sunu boroom defal ko tawféexi mu taataane loolu ci maam Cheikh Ibrahima Fall ci weeru safar wii nga xam ne weeru safar bi Serigne Mountakha doonee Serigne Touba ak léegi at mu jot day togg ay ñam bis bu set diiru fukki fan ak juróom yi nga xam ne moo jiitu ci safar. ñetti fan yooyu la tax boolewu ko ca mooy ñetti fan ñetteelu fan yooyee day xat-xataay boo xam ne agsi ci dëkk bi du yomb waaye sëriñ bi at mu jot nii la koy defee bis bu yàlla sàkk day togg ay añ yu mucc ayib yu yaatu yu bari lool ngir jàppale ko Cheikh Mouhamadul taxa ci gan ñi nga xam ne weeri bu teroo dañuy baagante Touba dem ak ñëw di ko siyaar sunu borom dogal it loolu muy jëf joo xam ne jëf ju rëy la waaye sëriñ bi gisul jëf ji sëriñ Touba lay gis ji jëf ji sëriñ Touba lay yëg ci jëf ji ndax jëf ji kat li mu rëy rëy da koo fas yéene gunge sëriñ bi ci weer wi jamono bu nekk. waaye nee na mu doon jëf joo xam ne jëf jum fasal mboolem murit yëpp la rawatina jullit yëpp mu wuutu ci bépp murit bu amoon yéene def ko te mënu ko sëriñ Abdou Samad mu sëriñ Samad bu wuutu la ci weeru safar fu teroo muy defar ay bernde di ko yut Cheikh Mouhamadul taxa di ko terale gan ñi ba weeru jeex te loolu it yaakaar naa ñëpp xam nañ sëriñ Abdou samat ci liggéeyal sëriñ Touba ci jullit ñi ci taalibe yi rawatina joxe aw ñam kon loolu moo waral sunu teewaay fii ñu fas ko yéenee tàmbali tey ci benn fanu safar fas ko yéene ànd it di ko defee nii ba fukki fan ak juróom ci weer wi ñu nekk incha allah di weeru safar añi it sëriñ bi bu ñu yóbboo añi nii bu ñu indee añi nii it dañuy delluwaar waaj indi ay reer ni ñu indee añ noonu la ñu indee reer ba keroog weer wi di mat fukki fan juróom loolu it di taxawaay boo xam ne sëriñ bi yéene na ko mboolem jullit yëpp yéene ko mboolem murit yëpp kon nag ñu nit ñoo ngi profité ci occasion bi di sakku jullit ñëpp ñu ñaanal sëriñ Abdou Samad mu sëriñ Souhaïbou sunu borom yàggal ko fi te may ko ak wér ko kattan ndax am na yéene ak bëgg ci liggéeyu sëriñ Tuubaa